mu jekk-jekk ne am na ay liir yoo xam daf leen rek mooy illumination opposition bi lay tudde ay liir dañ ko yabal dégg naa ko waaw waxul la mu daan ne benn xale bu ndaw judd mooy Sonko yooyu yëpp ay gaar wala la maa ngi koy dégg xale bu ndaw juddu liir yi dee mooy ñoom Khalifa Sall ñu rey leen opposition bi su ko defee Sonko mooy liir bu juddu bi ay loolu la boo ma tuddatee la liir bu boo ko fi tuddatee ba nga tuddati fi liir comme sa ankay fa ay dara lu réewuñu déedéet ay ay waay jërëjëf euh, le trio <laughs> ñu xit ak kii di Mama Ndiaye muy trio bu am solo Cheikh bu booy seetaan nii lan la la jox instant bi lan ngay yëg waaw ñi ngi def ci nit ñi reetaan mais ñi ngi jàngale ci biir <laughs> yëg naa ci ñaar yëpp <laughs> alhamdulilah waaw ndax toog dafay dal nit ñi te ñoom bien que ñi ngi reetaanloo nit ñi mais ku leen déglu au fond am na jàngale maa ngi gën a bàyyi lool nit ñi xel loolu na am ree mais na am jàngale. parce que bii moom am na solo. loolu am na solo jërëjëf sama gars yi. ayca ba bisimilah ñu dugg nag ci borom Ndiassane. oustaz oustaz oustaz félicité la ci lii. Mhm. ci ndogu mati bi. ndax euh, bi nga koy bi nga koy def fii ñu ngi ko ñi ngi ko fekke mais. Euh, suivre nañ ko de bu suivre ko tey xam nga nag euh, ni ngay xamee pour mën a xam ne kii ak kii kii lañ mën a boole mm-hmm. euh, pour mën a composé nangam def casting bu baax doo mm-hmm. kii ko mm-hmm. ci temps record bu xat boo xam ne bi nga koy def ñun fekke nañ ko tey li nga ci doog daj ngir di ko def yéeg gis nañ ko dañ la ciy félicité bu baax a baax a baax loolu moom vraiment moo ndog yi nga xam ne mi ngi am ak troupe yi nga indiwaat mooy ñu ci mel ne ñoom tóoneeg ñoom ñooñu loolu itam lu am solo la loo xam ne bu fi jaaree mënuñ la cee bañ a félicité xam naa nag ko oustaz moom dina tabbeek seex bi ci euh, kii maamam dëgg. dëgg la macha allah euh, euh, alaaji dañ lay ndokkeelaat bu baax comme ni ko Pape Maguette waxee alaaji Cheikh bu nag wax na ko léeg mën nga reeloo nit ñi waaye jàngale di ci nekk ndax yonent bi daana ko dund mhm. amoon na ci saxaabam yi koo xam ne mu mënu ko woon muñ su ko séenee muy ñëw rek même su waxagul dara <laughs> yonent bi day ree koy wax no ay man Mm-hmm. su ko mësaan a séen rek même waxagul dara yonent bi su ko xoolee rek day ree parce que xam na ne dina ko reeloo mm-hmm. yonent bi ci boppam daana waxtaan sax ak nit ne léeg mu kaf wax julee wax ju leen reeloo mm-hmm. waaye nag du génn dëgg sallallahu ah, alayhi du génn dëgg waaw benn meer ñëw na ci moom yor bantam sukkoot na ko yaa rasulallah ñaanal ma ma dem àjjana nabi sigg xool ko na ko yow doo dugg àjjana <laughs> ñëpp tëdd ci suuf soxna say jooy di jooy ñi di këram di jooy ba bëgg a feebar nit ñi ñëw ne ko sang bi di nga rey soxna si yaa ko ne du dugg àjjana ma ngay jooy nabi ne leen wool leen ma ko mu ñëw mu ñëw ba taxaw na bi ne ko déedéet sa màggetaay gii nga dul duggee àjjana màgget du dugg àjjana ku ñëw àjjana dañ lay tëggaat ba nga nekk ndaw ñu doog laa waaye màggetaay gi laa ci jublu loolu dafa am solo mooy li cheikh bu def sànq ci biir wayam mm-hmm. yaa ngi dégg nit ñaa ngi tëgg waaye soo dee dégg message yi muy joxe. Mhm. ci biir way ci biir way wi léeg-léeg nag ma al asaf ñu bari ci ñun feebar bi ñuy am mhm. mooy du ñu bàyyi xel waxuwaa ji baatuwaa ji mhm. waaye dañuy bàyyi xel tabala bi tabala bi li muy am am solo message bi muy jàllalee ko gën a am solo xam nga bi mu demee ba tabala bi taxaw mu benn bennal ko yéen ñëpp yéen a ngi naan yéen a ngi am lu mu ngeen di yëkk te pourtant li mu leen firil noonu leen wax noonu moom la doon way ci biir way wi mais leneen nit ñi bu ñu bàyyi loolu xel bakk gi mu bàkk yàlla delloo ko lépp jël baatu allaham boobu nga xam ne mooy ismu zaat nga xam ne yàlla tur yi mu am yëpp ay fonction la boobu rek moo ciy turam yi des yëpp ay fonction la journaliste bi tailleur bi maçon bi mécanicien bi menuisier bi nangam ak nangam loolu ay fonction la waaye Mouhamed El Hadj Mouhamed Biteye moom loolu mooy tur wi allah mooy turu yàlla moo tax day loo xam ne dégg nga ni mu la ko waxee soo ko toppee di ko dagg xaraf par xaraf du tee yàlla di nekk yàlla ba xaraf yi jeex mhm. allah bu taxawee day firi yàlla yàlla dóor ci aaya mhm. allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayum mhm. mu ne nga dindi alif ga nekk ca allah mu des lillaahi nga utiliser lillaahi yàlla dóoraat ci aaya ne lillaahi maa fi samawati wa maa fi l ard nga dagg beneen laam bi mu des laam rek ak haa muy lahu yàlla dóoraat ci aaya ne lahu maa fi samawati wa maa fi l nga daggaat laam googu mu des ha yàlla ne ba tey maanaam huwa allahu allazi la ilaha illa huwa huwa al awalu wal axiru wa zahiru qul mm-hmm. huwa ji daal di dellu siwaat kon njàngale mi am na solo lool waaye dafa wax wax ju yéeme mm-hmm. daf ne dañu jàng dafa jàng tuut waaye ñu dimbalee ko lu bari loolu nag boo delloo ci histoire diggante yonent yàlla Moussa ak Xadir xewoon na ca Moussa mm-hmm. jàng na yor na téere yi waaye yàlla da koo bëgg a dimbali na ko demal seeti xabir mm-hmm. mu dimbali la ndax njàng mi dimbal da ci ànd tabaarakallaa xam naa ne ñuy def mooy ni ñu ko waxee rek ànd ak yow dellu ca aslu ba mm-hmm. mooy dafa am loo xam ne ci réew mi dañu ko bokk moom ko mm-hmm. am ci pàcc boo xam ne ci tariqatul qadiriya muy tariqa bi njëkk am ci Sénégal ba tax tey mboolem waliyu buy tudd ci réew mi soo delloo ci baayam baa nga dellu ci maamam baa nga dellu ci yaayam danga nga fekk ne cosaanam mooy tariqa boobu ca la jàppoon ca la nekkoon kon suñu dee dellu ci sa turandoo ñëwam ci Sénégal ak cosaanam ba tey dugg seem ci Sénégal nan la ñu koy jàngatee Cheikh boobu badaatu bi bismillahi fi awali satri fasmaahu xisnun maniyun min addurri wa sallaytu fi saani ala xayri xalqihi muhammadul mabuusu bil fatqi wa nasri ah oustaz Mouhamed laaj nga ma laaj boo xamante ni xajul ci waxtu xajul ci bis xajul ci semaine xajul ci weer xajul ci at xajul ci dund waaye lu dul doy loo ci am dalay doy laaj nga ma ci ku ma bëgg waaye yenn saa nga bëgg ku bëgguwul sama góor gi nag bëggu na fa bëggu yenn saay mm. nga ni Cheikh bu Jóob daal sama waay la bëgg naa ko waaye dangay waaru waaye dinga bëgg am Cheikh bu Jóob nit ñi la nit ñi ñoo ni la ñoo ko bëgg ndax moo jar a bëgg mm-hmm. xëy na Cheikh bu Jóob de jarta bëgg waaye turandoom ku jar a bëgg la ngir dimension ba góor gi ma laaj mi ngi tudd Cheikh Abi Mouhammad Abi Mouhammad way juram nit doo ko wax te tuddoo ay way juram dana njëkke yaayam yaayam a ngi tudd Fatma Diop Pa Màgget wax na ko sànq ma daanu jël ndeysaan Fatma Diop dañu ko tuddee maamam ngir way juram wu góor mooy Sakor Fatma way juróom wu góor mooy Saxoor Fatma moom yaayi boroom Ndiassane way juróom wu jigéen mooy Ngóone Issa Fall bu Barjaal kon waa réew mi la waaye doom ñaar a ko seq way juróom wu góor moom borom Ndiassane nag daf fee dëkkul ci cosaan cosaanam ma nga Algérie way juróom wu góor mi ngi tudd Cheikh Sidi Mouhammad ñu